sami alim min asheytaan rajim la hawla wala quwata illa billahi alim azim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xew-xew bi nga xam ne euh, dal na suñu kaw fan yi mu mu mu mu nekk choc bu particulier ci bépp doomu sénégalais euh, di wax ci turu mbër yëpp di jaale ñi nga xam ne seen ay mbokk seen ay xarit seen ay am di jàmm ñàkk nañ seen bakkan muy nekk accident bu terrible bu metti lool boo xam ne ñaantuñu yàlla dund ko mm-hmm. wane rek nii euh, mbir mi ñu ñëpp ñoo ko bokk waaye ñu ngi koy jaale ahlu làmb yëpp rawatina nag <coughs> rawatina Sénégal gi yëpp di ko di bokk naxar bi di ko partagé ak euh, mbokk victime yëpp di wax ni képp koo xam ne ñàkk nga ci sa bakken rek yàlla na la yàlla xare aljana te mu gëj fi am parce que fan yii yëpp mooy débat du jour te nag waroon ñu permettre tamit ñu defar suñu toogaay euh, gën a defaraat jikko yi ci tali bi gën a defaraat jikko yi ci kër yi gën a defaraat parce que tamit li nekk ci biir kër yi rek moom la gars yi di véhiculer ci tali bi parce que nag Sénégal quoi qu'on dise rek mooy euh, indiscipliné bi bii reñee ci tali bi dafa jéggi dayoo boo yore oto di dawal di nga xam ni am na musiba yu bari yoo xam ne mi ngi dal suñu kaw loo xam ne ñooy sabab bi mm-hmm. yàlla nag mooy rey waaye nag euh, ndimbal na ci fekk loxol borom war nañ defaraat suñu toogaay te nag am nañ habitude saa yu jëy yu mel ni amee rek mm-hmm. euh, ñu jël ci ay mesures pour quelque temps et loolu c'est absurde te loolu c'est inadmissible waaw mbir moom ñu ngi fàttaliku batalo Joola mm-hmm. bi mu amee rek dañu jël ay matuwaay yu mat sëkk ci surcharge ak yooyu mais au bout du temps rek dañ njekki jékki nekk fañ nekkoon kon book état bi ñu ngi sàkku ci ñoom ñu jël ay matuwaay yu mat sëkk ci tali bi parce que tamit loolu mu ñuy permettre sénégalais yi nekk ci jàmm mm-hmm. nit ñi ku nekk tegu tegu ci yoon di jaale ñëpp di jaar ñëpp waaw comme li ñu fi dajale tey rek euh, gannaaw bu ñu bu suñu président euh, Abbas Ndoye euh, addo presque li mu li ma war a wax yëpp wax na ko di nuyu suma dirigeant yi nga xam ne ñoo fi teew muy mel ni euh, Amadou Kadi Diop le le coach de l'équipe Fass di nuyu suma ménager Khalifa Dia di nuyu le secretaire général di nuyu euh, di nuyu suma encadrement encadreur yi fi nekk yëpp commençant par le président Abbas Ndoye euh, di nuyu Amadou Kati Diop le président di nuyu Moustapha Gueye le directeur technique nekku fi di nuyu Euse Pape Demba di nuyu le secrétaire général euh, Bouba Thiaw di nuyu le ménager Khalifa Dia et les autres di nuyu mbëri yëpp yi nekk fii yëpp tam di nuyu sant euh, di di di di nuyu sama jumeau. Diop ah, ah, sama sama jumeau il vient d'arriver am di nuyu ah, di leen sant di gërëm nag euh, ak seen teewaay fii ah di nuyu l'ensemble des lutteurs yi nga xam ne tey sont ak ñi nga xam ne teewuñu fi. Mm-hmm. di wax ni rek li ñu fi teew taxat teew fii rek mooy. comme ni ko président waxee rek mooy le renvoi de de de le renvoi du combat contre euh, Ama Baldé mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla jël nañ ko avec avec philosophie ah. parce que tamit euh, c'est très dur mos nañu daal. suñu carrière. xam nga sama euh, ça me rappelle le combat Tyson. dama ko préparé ba mu des au bout de au bout d'une semaine. ma dem sama kër toog di yeewu xam ni am na lu may metti xam nga mu ma jëloon ko def ko lu simple nekk te yow la xam nga moo tax tey li dal sama adversaire dama koy dama koy bokk ak moom ah euh, gënalu ko parce que tey li ma permettre tey ma jël ko sax mooy ñeewantal ko ci situation yi mu nekk vis-à-vis par rapport avec les les parce que euh, toog na lu yàgg li ma dal moo ko dal man toog naa quatre ans ma mais cause yi du benn c'est un jeune leader bu bu bu bokk ci làmb ji di toog plusieurs années du du bëre mu metti lool ba ñewantal ko loolu moom permettre bu ma jógee ci combat rek on m'a proposé d'autres am mm. moom lañ ma mujjee proposé mais proposé nañ ma avant moom ñu may proposé d'autres mais ak ñun leadership bi ñuy incarné ci làmb ji ak li ñuy li ñuy li ñuy fi ñu yàlla teg ci làmb ji ñun suñu ginnaaw dafa yaatu te wax dëgg yàlla yërmande bi ñu am ci mbër yi nga xam ne tey euh, ñoom lañ nekkal yërmande yërmande bi ñuy xoolee Mooro bi ñu bokkal ndey ak baay di ko xoolee Serigne Ndiaye moom la ñu xool bépp mbër boo xam ne bokkuñu sax ak moom écurie hmm. parce que sport boo sportif boo ko nekkee rek danga war a am mentalité mentalité de fédérateur mentalité il suffit nga nekk sportif rek xol mu sell nga yor parce que sport c'est esprit sain dans un corps sain koo gis ci àddina koo bokkal ak koo bokkalu da nga ko war a jàmm loolu moo ma permettre tey ma jël Ama Baldé kon tey li ko dal tey douleur dama koy partagé ak moom malgré que métti na ci man parce que man maa ngi nekk ci di benn dynamique de travail bu métti bu intense boo xam ne bon ku xam xam ni làmb boo koy préparé da ngay calculer lépp ci méthode d'entraînement méthode côté yëpp xam nga da ngay ñëw budgétiser li ngay def mais boo ñëwee ba mu des un mois mu kii dina métti mais lu métti ci man ci moom lay gën a métti moo tax euh, maa ngi koy douleur bi maa ngi koy partage ak moom di ko partagé ak ak famem di ko partagé ay équipe di wax ne nag blessure bi def nañ ci li ñu ci war a def parce que on a vu que euh, le CNG a contre-expertise loolu la xaar ci ñoom ba résultat yi génn nga. Euh, bon moment discal c'est pas quelque chose de facile blessure bu sérieux la parce que boo nee bon moment discal rek sa sollicite les les les les les les disques lombaires d'habitude boo xoo duggee ci internet bi boo xoolee nga xam ne blessure du blessure boo xam ne tey du jour au lendemain day wér il faut des bons techniciens. xam nga ñu ñu mën a faj mën ko suivre boo déggee sama président léegi na on attend notre adversaire parce que xam na ni c'est pas c'est pas une blessure boo xam ne tey mën na mën na mën na mën na mën na mën na wér ci deux mois xam nga moo tax ñu ubbi suñu bunt yëpp pour d'autres promoteurs ça n'empêche pas que mu toog parce que y a parce que y de des yoo xam ne tay mën na dal sportif bi ah euh, yaa a y a y Euh, y a des yoo xam ne mën na dal sportif bi euh, mu mu mu muy muy def euh, mu mu mu mu bañ a toog maanaam tey day day def récupération actif di def footing di mais bon moment discal bi dañ ne la out da war a toog sans rien faire pendant un mois boo demee après le médecin xool ñu renouveler ko si si c'est pas renouvelable on continue kon ça veut dire que nekkul luy faju tey wér tey à tout moment boo ko fajul comme day spécialiste mën nga jékki-jékki à tout mois mu yëngatu. kon ñu ñaanul loolu suñu frère Ama Baldé moo tax le président léegi wax na ko ubbil na suñu buntu def nañ ñuy war a def parce que tamit administration bind la laaj moo tax def nañ ñuy war a def jébbal ko CNG di xaar waaw parce que tamit bon dynamique de travail bi ne man man euh, euh, euh, li nga xam ne daf ma xaw a tardé ci làmb mooy absence yi may def. Euh, euh, euh, un an deux ans trois ans sans lutter bëri benn combat toog loolu boo xoolee li ma gàllankoor suma maa gën a ci mbër yi mag yi maa ci gën a néew ay combat loolu nag li ma li ma li ma li tax mënu nekk ci benn dynamique bu intense mooy li may may toog lu yàgg lu ma bëri kon nag maa ngi nekk ci benn lancé boo xam ne wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax ci ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla l' encadrement bi nga xam ne tey à chaque fois ñu ngi may booster avec les coachs les supporters di mu di mu booster envers que ni ma nekk ci benn niveau bu extraordinaire maa ngi ci xam nga kon bokk lii tey bu ma bëggee bu ma bëggee bu ma bëggee euh, euh, interrompre suma suma suma saison moo tax euh, suma ay dirigeant jël seen ay matuwaay ñu waxtaan échanger moo permettre tey ñu ubbil suñu buntu pour tout promoteur pour beneen adversaire bu ñëwee xam nga ñu bëre man actuellement nii sant yàlla un combat de deux mois un combat un mois sax mën naa ko bëre actuellement nii nii fi may wax ak yow kon bokk toog bi may toog 3 mois 4 mois bëriwuma dafa sama sama porte préjudice ci yenn affaires yi moo tax su ma dirigeant yi jël ay seen ay responsabilité xam nga jël mbir mi nag avec philosophie ah parce que mbir suñu borom la man à chaque fois saa yu ma jëlee micro damay wax ni yàlla maa ngi ñaanal sama adversaire wér gu yaram ak jàmm parce que cat dafa gaaw lu ne xaj na ci sportif bi lu ne mën na moo tax wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal suñu adversaire bi na ko yàlla wéral ba mu dellu si di nuyu équipe Fass bi ñun ñëpp seen présence nag am na importance trop di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm mm. di xaar yeneen question euh, non priorité amu ci priorité mënu ci am mais maanaam tey euh, euh, les amateurs dañuy dañu dañu dañu dañuy ciblé y a des adversaires potentiels yoo xam ne tey moom la làmb soxla exclure ñu d'autres adversaires parce que ñëpp c'est des adversaires président wax na la ko léegi face mooy écurie bi nga xam ne seul contre ñun li ñu am li am ci ay boo ko tegoon fi ëpp na dix exclure ñu kon mais nous avons des potentiels adversaires yoo xam ne tey moom la làmb soxla xam nga mooy mooy comme combat comme ni ko président waxee ay combat jànq ay combat grand contre petit mais nag exclure ñu keneen. non aw ma ci choix. aw ma ci aw ma ci aw ma ci aw ma ci préférence. mooy mooy bi amateur yi soxla rek. Ah, amateur yi moom bu ñoom xam nga ñoom seen affaire rek. Ah, ah, ah, président bi président bi parce que mooy làmb mag ak xale moo xew. man mais man aw ma ci choix man en toute sincérité. parce que normal la sportif. mais Lac na bëri yow parce que démb def na benn déclaration. non loolu da nga koy laaj président man du ma wax man man du wax man du wax ci loolu loolu da nga laaj président. non loolu da nga koy laaj président. loolu moom non yaa ci wax yàgg Lac de Guiers numéro 2 war ngeen mën a bëri. parce que combat non aw ma aw ma aw ma ma problème ci loolu mais ba xamoo ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun man man man man man samay promoteur man man samay supporter ak suma staff ñooy décider tey ku doon soxla combat malgré que âge bi ma ci làmb je suis mature responsable mais tey combat bu ñu ma doon proposé ka may proposé ci jëmm ji laa koy yebal mu discuter ak moom kon ça veut moom préférence am wax na ko. ànd nga ci yow. ànd naa ci waay. wala waa Jaraaf li ñu sóoraloon waa xam nga làmb Pikine nag euh, Fass bokkul ak benn làmb en toute sincérité làmb pikin ak Fass te nag wax dëgg yàlla ñu bëri mbër yu bëri bëri na ñoom man yu ma bëriwul ba bëriwul mais combat jànq gars yi dañ ko bëgg. combat bu musul am dañ ko bëgg mais nag exclure ma benn pour benn benn mbër en toute sincérité. te booy ñaan ak li tax bërëg moom mu neex mooy dañoo bokk tànk bu ñu teg. waaw waaw loolu daf cee neex. waaw lool la rek waaw mais loolu waaw waaw moo tax waaw mais loolu la loolu moo tax. waaw. am jaay bi buñ ko focaliser ci ay ñun ñëw ñëw fa pour di wax benn mbër. wax dëgg yàlla. Lac de Guiers numéro 2 bàyyi ko foofu mu toog. booy wax non booy wax ci mbër yi waxal mbër yi non dama la boo waxal ci mbër yi nga xam ne tey moom la Sénégal bëgg ma bëril waaw lu leer laa la ay wax waxal la man man may wax nii yow laa jàkkaarloo dama na la sooy wax ci mbër yi ma war a bëril waxal ak mbër yi nga xam ne Sénégal moom ñoom la bëgg ma bëril c'est clair li ma wax ok on change de sujet waaw jégalu ma la mbër yi bëri ñu bëri yow mi sax Lamine boo bëggee ñu bëri amul problème malgré que doo mbër ah waa ñëwoon. non Siteu avenir ci làmb la loolu amul benn problème mi ngi def ay wax dëgg yàlla muy booy bu may saluer ak combat bi mu jógee wax dëgg yàlla di ko ci féliciter di encourager Papa Sow làmb moo toll il faut ñu jaxasoo làmb mënu ñu toog benn cercle di bëri depuis des années il faut que affaire yi jaxasoo des fois sax nga bëri mbër boo xam ne naan lii pourquoi combat bi loolu dafa baax loolu loolu mooy kii làmb loolu moo koy làmb du benn cercle làmb dafa war a évoluer Siteu war na bëri gars yi war na bën mën a bëri man war naa war a mën a bëri Siteu Siteu war naa bëri Boy Niang Siteu war naa bëri Modou Lo mais c'est comme ça parce que c'est un jeune boo xam ne tey mi ngi mi ngi mi def ay exploit mi am na public tey am na xoromu làmb am na li lépp lu mbër di am ci làmb am na ko loolu moom c'est a à saluer eh mon frère noo def waay non taamuwuma Boy Niang bu bàyyi loolu dama la amateur laay wax man awma mbër mooy taam man tollu ma ci laamu di taamu ay mbër waaw dégg lu waxuma la ay roi ak paateeg duudu man je parle pas roi dama nekk ci dynamique de travail boo xam ne su ma sañoon bëri ci ñaari weer wala weer xaaruma benn mbër mbër buñ ma jox sama promoteur bu bëgg a bëri ma bëril la soo ma wooyee dirigeant bi le président ngay waxal su dee ma jógal suba ma jóg aw ma choix ci loolu man giri li ma def ci làmb tool bu ma tolloo di def ay choix ci mbër dañ ma war a dama war a génn làmb dem defi leneen aw ma choix ci benn mbër ba mbër bu ma bëral ba aw ma choix ci yow ba maa nekk ci dynamique bu ma permettre tey suba ma bëre te dynamique boobu bëgguma mu yàqu parce que tamit combat boo xam weer ci des mu yàqu suba sax ñun dans dans un mois ou dans bëre aw ma ci xaar ma yàlla taamu ma benn mbër mais nag les luttes les les les promoteurs les euh, amateurs dañ am choix ci ay mbër yoo xam ne tey ñaari diw ak diw bu ñu bëree li li amateur bëgg gis ci làmb ñaar ñu ngi ci ñaari mbër yi loolu ko loolu mënuñu ko loolu mënuñu ko du ay njaay joxal jóob dafa am ay mbër yaa dafa am ay lutteurs yoo xam ne mënul loo leen boole te doo bëgg li nga bëgg ci làmb te doo ko gis am na mbër yoo xam ne nag boo leen boole ci làmb li nga bëgg ci làmb doo ko gis xaw ma de c'est à vous de de de blessure Ama Baldé. ñenn ñi dañ jàpp ne wokkatu bu daje la ak gëstu. loolu kay du wokkatu bu ànd ak gëstu. ndax waa Pikine dañu jàpp ne que certains amateurs li amateurs yi wax laay wax. Mhm. que Fass dañu booloo bennoo jël combat bi teg ci seen bakkan bu la renaissance de Fass. combat bi yàqu ci une blessure musculaire bu Ama Baldé. Mhm. ñu ne kon wokkatu bu daje gëstu la ndax Ama li ko gën a mooy njëkkante ak Boy Niang bëre combat royal ci diggante Modou ak Ama Balde non man moom je suis loin dama je suis loin di de penser comme ça man du ma du ma du ma ma nekkuma nit kuy xalaat xalaatu tëgg wëndeel yi man gëmuma yi man li ma gëm mooy. blessure am na blessure am na. blessure boo xam ne am na contre expertise parce que ñu CNG ñi ñuy jiital ay kàngam lañ ay nit yu ñu respecté lañ ñu ngi ciy jaar di nuyu. Bira Sène le président avec son équipe bi mbir mi amee ñoom matuwaay bi ñu ci jël jël nañ ko mooy un lutteur blessé day ñëw indi le certificat médical na la damaa gaañu ñu def contre expertise contre expertise kan moo koy def le médecin CNG. avec des IRM avec pas ay foo foo Ama Baldé jaaroon foo ko gën a xóot. la le médecin CNG jaar pour. ñoom sax dañuy yaakaar noonu déchirure musculaire la wala dugg na fii ba moment discal la c'est pas un déchirure musculaire c'est différent parce que loolu dafa solliciter les disques lombaires ku xam ku xam nit nii ndigg ko yor ndigg mooy doomu aadama te loolu c'est sérieux bu ñu ko CNG na xaatamee indil ñu ko li ñuy wax ñuy gëm du ñu gëm ni Ama Baldé euh, bi nga xam ne tey wax dëgg yàlla toog na quatre ans bëriwul adversaire am gaañu tey ma jël ko bëreeg moom mu toog ba combat bi un mois nii ma dégg façon xeetu wax bu wax bu ne ñooñu wax dëgg yàlla wax yooyu ñuy wax ñoom la engagé seen xel moo toll foofu mais man mi nga xam ne Ama Baldé man gëm naa ne dafa gaañu te bis bu ko yàlla mayee wér dina ñëw bëre parce que bëre mooy métier attention mbër bu bërewul amoo xaalis man loolu laa ko man man loolu laa ko gisee non loolu ça n'engage que lui ah c'est pas mes mes oignons ah c'est pas sama affaire mais ce qui est sûr et certain mooy moom déposer certificat guérison moo ko war parce que bu wéree dafa da a déposer. mais li tax mu laaj jusqu'à présent fi ma lay wax nii. man sama combat pour ma jël beneen combat sa dépend ci certificat guérison bi Ama Baldé di indi te man c'est sûr et certain que blessure bu mu am. Euh, leer na ma ni dinañ ko renouveler plusieurs fois parce que c'est pas du blessure waya waya du quelque du xoosu du dara c'est quelque chose de très sérieux kon boog dina durer dana yàgg kon bu loolu moom permettre mu ubbi sama buntu pour d'autres promoteur kii kay mënu ma poser question nga poser waat ma ko kam ah. doo amal Modou Lo Modou Lo déposé na lettre de guérison. Mhm. ñoom ñaar kee tamit bu dee wér na. Mhm. bu ne moom kee bëreel amaa lay bëreel yow nan ñu bëreeg Boy Niang ñu bëreeg Boy Niang wala ñu bëreeg Pathé Ndiaye wala Dame Fall. attends attends il faut il que. il faudrait que il faut il faut attends question yi am am am am ordre bu ñu koy waxee. Mhm. am harmonie quoi. parce que su fekkee dañuy wax waxaat dañuy réer ci wax ji. dañu ne ñun on prend acte de blessure Ama Baldé di ko ñaanal wér ak jàmm ak salaam. li ko dal yàlla na saafarawu ci lu gaaw a gaaw a gaaw mais au cas échéant notre lutteur écurie ak staff bi autorisé nañ ko ah mu dem bëre ji ak d'autres adversaires ah bi ñu gënal mooy booy Niang beneen bi ci topp Modou Lo déposé na hmm. certificat de de guérison su fekkee ne que mënul xaar Ama Baldé na ñëw bëree Gris xaar Ama Baldé Gris tam xaar Ama Baldé Ama Baldé yàlla na wér ci lu gaaw ci lu yomb donc ñun li ñuy wax leer na ñu kii njëkk bëre kële wala kële njëkk bëre kële suñu lutteur dañ ko tegoon ay conditions très dures d'entraînement pour mu nekk ci benn dynamique dynamique boobu la ñu bëgg a conserver donc la ñu bëgg mu bëre c'est tout c'est clair c'est aussi clair que ça tey ku ñu mun a jot ñu ñu xool ne que mooy lutteur bi ñu proposé pour ñu bëreek moom dañ koy jël amuñu ci xàjj ak set et que ñun écurie Fass dégg naa léegi euh, ku wax Siteu pourquoi pas abu Siteu dafa prouver def ay maanaam ci ci làmb tey ñun écurie Fass suñu politique du ñu bañal benn xale bu prouvé dajeeg suñu leader. xam nga pourquoi dañu am ay xale yu nekk ci ginnaaw yu ñu yàkkamti ñu jot ci mag ñi parce que dañu am yaakaar ne bu ñu jotee ci mag ñi léegi ñooñu abal ñu dañu am Serigne Ndiaye am Forza am Maodo am Lac Rose ñu yàkkamti mag ñi ñeme leen ba jox leen sens kon xale bu nekk feneen dañ lay jox sens ñu suñu politique loolu la. jërëjëf c'est clair c'est ma comprendre loolu mooy li Gris wax c'est-à-dire que xam nga tax ma porté ko fa waaw ah, ah, ah, xam nga voilà dama lay gàttal xam ma porté ko fa parce que amateur la avant d'être président de l'équipe de Fass man ci lamb laay dund lamb yëpp laa xam lamb yëpp laay seetaan non l'amateur c'est l'amateur qui parle qui te dit que lamb bi ma gënal man mooy bi neex amateurs yi laa jàpp ne tey boo doon def sondage 70 pour cent wala 80 pour cent des amateurs te diiroo Gris Boy ñaa combat bu neex la moom la ñëpp bëgg comme ni ñu bëggee woon Ama Baldé Pikine Fass dafa nekk benn derby bu bu bu jiitu bu jiitu ci làmb avant Fass séeréer yi la woon mais après dafa taxu dem euh, Pikine Fass mu nekk ay combat yu neex yoo xam ne wala day am tension am yëpp ñu bëri ko ci jàmm ak salaam donc loolu choix wu amateur bi la c'est pas le président parce que man du ma dicté dafa am staff technique Kati Diop la Moustapha Gueye la ils vont choisir le kam amateur bi man président amateur c'est Boy Niang combat bu neex la giri tegal la ci ne ñaari pied droit lañu loolu kay combat bu àdduna tukki la. mais est-ce que Boy Niang mën na royal xam nga combat royal moom man man en tant que président bi pa laay wax combat royal c'est un débat bu mu dul bokk man du mu ci mus a wax. parce que pour man y a pas de royal dans cette ci arène bi daanente la oui à mon avis à humble avis non non amul amul sax pour man yéen journalistes yi sax war ngeen defaat seen liggéey cest à tey. war ngeen remettre en cause sa couronne de roi ça amul amul amul amul sens amul valeur ça n'a pas de sens aujourd'hui tu dis couronne de roi couronne de roi boo xam ne bala gay daan na la ñaari yoon roi nga ci Balla Gaye tey bu ñu ñëwoon fii ñu ne roi bi mooy toog ci siège bii Balla Gaye jógee na la ñëw Modou Lô ñëw kuy toog kan mooy toog dañuy waxtaan il faut dañ ko fi def nii rek na dañ ko fi def nii bàyyi ko fi bay bayal ko fi ba mu sax fi mais man à mon humble avis en je n'ai rien contre Modou Lo seen un ko que j'apprécie sérieux na am na fulla ci lu muy def fexe na ba jot ci mais loolu dañ ko fi bàyyi roi roi mais roi ci naka Balla Gaye daan ñaari yoon roi am nga noo nekkee roi am Balla Gaye bu dee mooy roi bu Eumeu Sène nu muy nekkee roi fan lay nekkee roi tey boo nee Bombardier mooy roi bu Gris ñëwee nu muy nekkee roi attends dañ ko fi bay bayal ñun nekk ñu si dynamique roi sport lañu nekk nos lutteurs doivent compétir si nga tey dirigeant yi nekk ci yenn écuries yi dañu war a am beneen attitude ak beneen gis-gis pour pousser nos jeunes lutteurs la à être productifs mooy ñu seen bëre bii ñuy bëre amal leen njëriñ mooy ñu bañ di toog lu yàgg bëriwuñu ñu fexe am làmb sport yàggul yàlla du maye dafay abale xale yi dañ leen war a pousser à ce que ñuy régulier di entraîner à ce que ñu fexe ba benn lutteur écurie bu nekk am possibilité di bëre deux fois ou trois fois dans l'année mais topp ci ay couronne ak ay nangam couronne yi amul sens métier métier journaliste su xëyee day liggéey mécanicien bi day dem ci garage am bureaucrate ba dem ca bureau mbër ba dafa war a bëree ñetti yoon ci année bi wala ñeenti yoon mu amal leen njëriñ ñu mun ci faj seen i haajo mun ci nekk ay am tekki ëllëg dara am réussite sociale donc on parle pas de couronne on parle de d' activité seen activité la dañu war a bëree saa su nekk loolu la ñu gëm ñun donc ñun basé wuñ ci ay couronne wutuñu couronne jéemuñu couronne couronne mooy lan Tafa Gueye bëre fi daan ñëpp xanaa kon bu ñuy wax roi mooy roi Manga 2 bëre fi daan ñëpp kan moom mooy nekk roi ci Tafa bi daan ñëpp kan la daanu daan ñi fi fekkoon ñëpp kan mooy roi donc loolu dañ ko fi bàyyi rek comme ñu ko dindi tey man su ma doon journaliste dinaa ubbi ay enquêtes yu xóot ci naka la ñuy dindee tur roi bi ñuy wax fii ci làmb xool fan la ne xool beneen critère bu ñuy teg pour def ko parce que critère boo xam ne da ngeen daanante ñu ne roi ah man bokk à mon humble je n'ai rien contre les lutteurs moi j'apprécie tous les laa amante ak ñoom ak salaam donc mais couronne roi daal du sama gis-gis man waaw. waaw ah, gars yi baax na ah. euh, léegi bon ñu ngi nuyu ah, di sant ñëpp di sant ñëpp. di ñaanal avant Baldé. waaw bu gaaw a gaaw. waaw ah ñun on est là. bon lii démb ak tey. li démb li démb la jël suñu position ñun. waaw sur club waaw voilà donc euh, ñi ngi ñi ngi ngi ñi ngi ubbil suñu buntu ñëpp mhm. décision bi démb lañ ko jot ci CNG parce que bu mënuñu woon wax tant que CNG yónnee wuñu document démb lañu ko yónnee ñun bi ñu xëyee tey jot ñoom jot nañ suñu lettre bu leen wan ne dañoo bugg suñu mbër dem jëli beneen combat lettre baa ngi nii tontu nañ ñu euh, defal ñu réception ñi ngi xaar ñu confirmer ñi ko donc kon tey lañ tey lañ jël décision ubbil nañ ko à partir de tey ku ñëw ñu discuter ak yow suñu suñu mbër bëre donc ñi ngi ñi ngi profité aussi ci turu écurie di jaale réew mi yëpp euh, ndogal bi nga xam ne suñu kaw la dal ah suñu mbokk yi fi jógee yàlla suñu borom xare leen ci àjjana yu kawe ya lii yàlla na fi gëj ah yàlla teeru leen ak yërmandeem ah naqaru ñëpp la méttitu ñëpp la donc ñu ngi koy bokk ak Sénégal yëpp ah di ñaan mu gëj fii ci barke Yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam waaw di di masawu le promoteur ah gannaaw ba ñu ba ñu masawu suñu adversaire c'est pas ah. ni mu méttee ci mbër noonu lay méttee ci promoteur bi c' est la deuxième fois mu arrivé ko dañuy wax ni rek euh, bon euh, mbir mi moo demee noonu ah te nag ku gëm yàlla la ah. man xawma ko profondément mais c' est un gars boo xam ne wax dëgg yàlla il est trop engagé te gis naa ni muy jàppale mbër yi te je me suis dit que ni man képp kuy jàppale mbër rek man ngay jàppale parce que man dafa am loo xam ne mbër yi dañ ma ci wóolu jiital ma kon boo kuy jàppale mbër ma yëg ak ma ñàkk man nga koy defal kon maa ngi koy gannaaw ba ma euh, masawoo suma adversaire moom Ibrahima Diop le promoteur maa ngi ko ci masawu te xam naa ne mbir mi jël na ko avec philosophie xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni rek euh, comme ni ñu ko waxee ni ñu ko ubbee rek ñuy jaalewaat suñu mbokk yi nga xam ni terrible accident bi nga xam ne dafa dal suñu kaw métti lool nag parce que nag wax dëgg yàlla euh, boo xoolee les images di nga xam lu métti la waaw waaw ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale sénégalais yëpp di ko wax ci turu mbër yëpp. dinañ ko jaale la presse waa di wax nii rek nii suma dirigeant yi tamit wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di gërëm euh, damay wax ni rek ni euh, sama président maa ngi koy jaajëfal c'est un président plus parce que c'est un président boo xam ne waxam bariwul waaye li muy jëf ci li nga xam ne day mooy defar mu ëpp kon boog yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla kattanal ko ba li muy yéene gi mu am ci Écurie Fass yàlla defal ko bëggul lenn lu dul équipe Fass ci kanam ci lay dox ci lay wax te boorewul lenn lenn ak wax kon boog yàlla ko yàlla defal jàmm sàmm ko aar ko yiir ko ba lépp loo xam ne bëgg nga ko ci bëgg na ko ci équipe Fass muy avancement yàlla na ko yàlla defal di nuyu nag suñu suñu suñu suñu entraîneur suñu papa nijaay Amadou Kati Diop loo teel ñëw teel ñëw fi nga koy fekk engagé xam nga ba pare boolewul lenn ak wax xam nga mais nag bon xam nga moom fa mu fa mu bokk la xam nga noon rek la mën a mel ah ñu ko jaajëfal di nuyu suñu secrétaire général euh, Bouba Thiaw l'infatigable Bouba Thiaw ah le secrétaire général wax dëgg yàlla moom tout ce qui est bind xaatim lépp moom waaw ah, di nuyu son remplaçant euh, Malick Guèye di nuyu Moustapha Guèye le directeur technique di nuyu nag sama seexu yàlla bi te tey fu mu génn ci verte bi ah ak euh, Pape Demba nuyu sama ménager. Diop Diop nee na ma nuyu ko Diop waaw Diop Diop Diop nee na ma nuyu ko Diop. Diop waaw Diop Diop Diop Diop le premier supporter de Fass di nuyu mbër yëpp ah. ñoom Serigne Ndiaye am nga ah. doo teggi tànk. non su ma pàccalul li nga ma teg sama tànk gars yi bàyyi ma teggi tànk. Ah. yow boo gisee gars yi ni ngi xatraay teggi tànk non loolu lool lool loolu war a arrière non. léegi dafa est-ce que kay du ma du ma gën a baxal affaire sax. non tegi tànk weesu naa ko. xam nga boo gisee nag parce que boo gisee gars yëpp di xatraay parce que da xam ni wax dëgg yàlla euh, maa ngi daj coono yu méttee métti te coono yooyu nag dafa war a am fruit waaw un un sportif qui compétit pas dafay dafa lay indil gàllankoor parce que tey euh, planification combat bokkul ak tey boo planifié wul moo tax ñu nekk ci dynamique boobu di leen di leen ziar nag ah la presse ah. di leen jaajëfal ñaanal jàmm di wax ne rek yàlla Sénégal am jàmm. jërëjëf.